alors après après décision boobu euh, gannaaw bi ñu retenir la candidature de Bassirou Diomaye Faye euh, rejeter euh, celle de Ousmane Sonko en tout cas son recours pour ñu mën a examiner son dossier pour mën ko jox chance peut-être mu jàll loolu bi ñu ko rejeter euh, Pastef dafa def euh, euh, en tout cas le secretariat national de la communication du parti dissous moom dafa def benn communiquer pour rek rafetlu d'abord li nga xam ne mooy décision bi parce que nee nañ jàpp nañu ne seen combat bi en fait tey la gën a am solo te tey la leen gën a mener vers la victoire beneen bi ñu ne euh, c'est un précédent très dangereux boo xam ne euh, tey mën na am indi ay jafe-jafe yu bëri Sénégal dans le futur euh, tey naka ngay jàngatee communication boobu nga xam ne secretariat national à la communication bu partie bi def nañu ko. d'accord naa ci d'accord ci. d'accord naa ci parce que en fait li ñuy wax je considère que lu am la. xëy na Ousmane Sonko bu choisiroon Bassirou Diomaye fay pour ñu parrainer ko mu fexee mu am 30 millions yi muy versé cause caisse dépôt de consignation mu yóbbu dossier bi. Mhm. boobaa Pastef du ci bokk. Mhm. n'est-ce pas. donc euh, ñoom mun nañu sant Ousmane Sonko ci lu mu tànn Bassirou Diomaye Faye ba finalement kooku ñu jàpp ne dafa war a nekk candidat le 25 février. 2024. mais du d'une certaine façon c'est comme si Ousmane Sonko est déjà désormais définitivement out. alors qu'il y a toujours. Euh, 48 heures ouais. 48 heures comme man dégguguma Ousmane Sonko mënumaa waxtaan ak moom. Mm-hmm. ma ak son avocat ku nekk son mandataire. Mm-hmm. je ne peux la publication des listes ne léegi jeex na nañ dem ak Bassirou Diomaye Faye. parce que manifestement ils ont pris acte mais yow du sa parce que man Bassirou Diomaye Faye bëgg naa ko mais du sama candidat gum Ousmane Sonko mooy sama kandidaa ba mu ne ma léegi man bokkatuma jàppale leen ma Bassirou Diomaye fay ma topp ko moom Ousmane Sonko. jàpp àndoon nawle bi ba tey. waaw jàpp Bassirou Diomaye Faye parce que li ma la wax mooy liy génnee Ousmane Sonko ci xat-xat yi. moo ma yitteel man. donc loolu pour man. dañoo dem un peu trop vite en besogne mun nañu rafetlu lu Bassirou Diomaye fay nekk xëy na sañu ne même bu ñu demee bi cappaandaw gi Ousmane Sonko demul xam nañ ne donc am nañu candidat mais désormais ni ñu ko waxee ni ñu ko formuler dafa mel ni Ousmane Sonko moom léegi moom na dem nelawi bokkul te am na encore une petite marge de manœuvre boo xam ne mën na ko exploiter parce que comme ni ma la waxee avocat bu ñu attaqué le rang inéligible la conseil constitutionnel xanaa beneen lay lay wut pour éliminer Ousmane Sonko bu boobaa nit ñi dañuy xam ne c'est tellement gros que même bu Ousmane Sonko bàyyoon sax sénégalais dañuy ànd ak moom. beneen bi mooy deuxième séquence bi nga wax nga ne euh, nee nañu. Euh, ce serait un précédent parce que lay bu ñu lay pour éliminer Ousmane Sonko teguñu ko fenn teguñu ko fenn. pour mbiru diffamation bi. non seulement mbiru diffamation bi. Mhm. xam nañ ne àtte bi baaxul parce que c'est un jugement par défaut et non un jugement contradictoire te on parle de diffamation là kon ki diffamé rek yow da ngay dee ba mot juróomi at après nga dikk eh, nga nga non non kon bu ñu euh, euh, euh, at. journaliste bu ñu attee daan ko diffamation da dañ koy tere nekk euh, exercer pendant cinq ans. waaw ah, logique pour logique. logique pour logique. man mm-hmm. je suis acteur politique. ñu daan ma pour diffamation fii ak cinq ans kenn war ma fal. mais bu ko keneen defee mun na continuer son son activité pour euh, tranquillement yéenul maanaa et c'est pas ce que di l'article article dafa ne bu ñu la daanee noonu mënoo bindu ci liste électorale yi or tey jii Ousmane Sonko pour que pour le rendre inéligible il faut le sortir des listes électorales c'est une nouvelle procédure de radiation warul mun a appliquer wu fii moo tax ma ne la li waroon mun a tere Ousmane Sonko mu nekk candidat en 2024 nekkul conseil constitutionnel xanaa dafay jógee feneen mu dugg conseil constitutionnel ñu ne la doo nekk candidat te loolu moo am parce que ñoom dañu ne ça le rend inéligible maanaam kenn mënu koo fal fii ak diiru juróomi at hmm. te loi bi waxu ko te ñoom loi bi la ñu convoqué bu dee loi bi la ñu convoqué nañu tijji code électoral bi ñu bind li loi li loi bi wax loi bi dafa ne buñ la daanee noonu mënatoo bindu ci liste électorale. c'est-à-dire avec mois avec sursis. waaw moom lañ ni naan troisième tiré ne tu ne peux plus cette condamnation fait que Ousmane Sonko ne peut plus ne peut être inscrit sur la liste électorale loolu la article bi wax mais xam nañ ne. bu ñu waxee loolu yenuwul maanaa parce que soo nga déjà sur la liste ñaanul pour ñu bind ko kon kenn du ko génne kon day nekk candidat moo tax ñu wëlbati affaire bi ne ça te rend inéligible te article bi waxul loolu moo tax ma ne dañoo c'est ça un précédent dangereux bu subaa dañuy xool Abdou Khadre neexu leen rek ñu wut nu ñu wëlbatee article rek ne kon mënoo nekk candidat parce que ñoom yàgg-yàgg nañ fi jógee conseil constitutionnel continuer moo tax ma ne la décision bu ñuy jël c'est une décision politique à portée historique dañu naan conseil ne mus na jël article euh, dogal bu mel nii kon dañu la koy appliquer bu subaa ku dul Ousmane Sonko dañ ko appliquer loolu. mooy précédent dangereux. waaw xam nga par exemple article euh, boo gisee ñun accepter euh, le fait que indaalewul indiwul attestation. Mhm. jurisprudence instance sànqare la mooy jurisprudence ça devient une jurisprudence te jurisprudence boo xam ne méngawul ak li yoon wax yoon wax. d'accord alors euh, gannaaw euh, communication bu euh, parti du sous Pastef euh, parce que ñu ngi waaj a egg ci euh, fin wu. te bëgg naa wax ci Karim Wade. dinañ ci wax <laughs> dinañ wax xam naa tuuti daf ñu koy may. bu ko defee ñu mën a aborder cette <laughs> question là. parce que pratiquement elle me signale que le temps est épuisé. absolument voilà maintenant juste benn réaction si appréciation bu Amadou Ba le candidat de benn Bokk Yaakaar. nee na décision bi en fait dafay marquer encore une fois la vitalité de la démocratie sénégalaise sous le contrôle d'institutions républicaines fortes et impartiales. gàcce rek moo ko jàpp. àndoo ci moom waxul dëgg wala. gàcce moo ko jàpp. Hmm. bu sañoon Bassirou Diomaye du bokk. Cheikh Tidiane Dièye du bokk xam naa ne mënul dara ci Habib Sy. parce que réaction bi quand même c'est comme si tout comme si de rien n'était. yow mënoo dugal recours. ñu ne sa recours bi baaxul am yóbbul. sa recours yóbbaaleel sa recours nga ne kontaan na bu sañoon Bassirou du bokk affaire bi ñor na ko à tel point que mu dem uti ay lay yoo xam ne dara du ci dégg yow nga ne kii parti politique la yor adversaire am bi nga xam ne état moo ko may sañ-sañ mu signé moo dissoudre parti politique am te tegul ko ci yoon léegi comme parti politique boobu la bokkoon bu ñu dissoudre nga dem convoqué ay articles yu nekk ci code de euh, des obligations civiles et commerciales mhm. qui concerne une association sportive et culturelle nga ne ko article boobu appliqué ko ci parti politique te nga nekk premier ministre nga ne yow yaa premier ministre association yi mën ñu considérer que parti politique. mais association sportive et culturelle la maanaam yow boo amee ASC buy football nawetaan bokkul ak parti politique yow boo amee ASC nga nekk président ASC. Mhm. di football nawetaan sama koñ man ma yore sama parti politique bokkuñu atte mhm. moom di sakku conseil conseil mu sukkandiku ci loolu pour tere Bassirou Diomaye Faye jàll. c' est seen seen frise par le ridicule. moo tax nag bi ñu ko dàqee xanaa kay moom dafa waroon noppi amul dara benn lu muy wax gàcce rek moo ko jàpp. d' accord alors waaye nag gàcce boobu. Mhm. dina ko gis le vingt cinq février. gàcce boobu gisagul dara xaaral ba ñu egg 25 février. incha allah yàlla na ko ñëpp fekkee. amiin yaa rabbi alors euh, ñu jeexale ak le cas de de moom également euh, sa candidature est jugée irrecevable li ko waral mooy euh, euh, mbiru double nationalité jamono bi muy déclarer que moom il est de exclusivement de nationalité sénégalaise jamono boobu méngoowul ak li nga xam ne moo am. tey jàpp nga ne c'est une bonne chose que. un opposant comme Karim Wade ne soit pas de la partie. démb maa ngi dégg sa beneen naataango. Mm-hmm. bi ñu présenter waa ji dugaloon recours bi mu ne le tombeur de Karim Wade. Mame Mbaye Niang. mu ne le de Karim Wade. ah d'accord oui. ba dafa doon présenté candidat mm-hmm. mu ñëw ba ci waa mm-hmm. mu ne le tombeur de Karim mu am ci gàcce. Thierno Alassane Sall. mu am ci gàcce. mais ça renseigne que c'est pas un candidat de l'opposition ah, mais loolu woyoful comme. mais un candidat de l'opposition man bu ma nekkee candidat de l'opposition yow nga nekk candidat de l'opposition mhm. ñu ne la da nga bokk ci élection yi mun naa sooraale ne mun naa jàll deuxième tour boobaa ma soxla la. oui mais est la constitution. du ma la gis a génn n'est pas au-dessus de ces considérations de ces calculs politiques là. constitution bi conseil constitutionnel xamu ko nañ bàyyi conseil constitutionnel mu def ko mais man dama ko def. mais finalement jugé na donc finalement jox na raison. Euh. mais mais du jóge ci man du jóge ci man. ah bon parce que man damay jàpp ne yow sama partenaire nga. bu ñu demee à un certain niveau mun naa la soxla. mais est-ce que monsieur Dianté est-ce que est pas c'est pas c'est pas euh, nekkul loo xam ne lu garaaw la li ngay wax dafa mel ni euh, alliance politique yi ak amitié politique yi. en fait ñoo nekk au-dessus de la loi. man ou au-dessus de la constitution man je suis parti. je ne oui. suis pas juge. man ci parti bi laa bokk footballeur laa. oui arbitre bi mooy conseil donc sa intérêt bokk ngay xool daal. ak beneen intérêt. Uh-huh. moom Karim bokk ci élection yi ak mu ñàkk ci bokk bokk ci élection yi ban moo ciy intérêt moom lan moo ci intérêt lu tax mu jàpp ne Karim Wade noonam la adversaire am la c'est ça. Quand je dépose un recours contre toi, tu es mon adversaire. Amadou Ba qui a déposé un recours contre Diomaye Faye, c'est l'adversaire de Diomaye Faye. C'est l'adversaire de Cheikh Tidiane Dièye. Cheikh Tidiane Dièye du mës a dugal recours contre Diomaye. Diomaye du mës a dugal recours contre Cheikh parce que ñoo ànd. parce qu'ils ont une seule nationalité sénégalaise. non yow ñi nekk ñu. conseil que di nga ñu conseil par est-ce que tu es que ñëpp ñu conseil constitutionnel validé nii ils sont nationalité exclusivement mooy attekat bi man bi ma bokkee ci jeu bi du ma je vais pas m'en prendre à quelqu'un moo amee kenn koo xam ne je vais m'en prendre à lui c'est Amadou Ba parce que clairement Macky Sall ne kii mooy suñu candidat ak ñeneen ñi ñoom moom Boy Diawo ñoom Aly Ngouille Ndiaye ñoom moom Mahammed Boun Abdallah Dionne ak ñeneen ñi nga xam ne sénégalais jàpp nañ ne Macky Sall moo leen euh, kii euh, def la ay candidat Anta Babacar Ngom euh, Daouda Ndiaye Rose Wardini gars yi dañ jàpp ne Macky Sall moo leen sappal pour ñu nekk candidat bu muy attaque ñenn ñii lay attaqué mais du ñoo xam ne woon nañ sénégalais ne ñoom opposition la ñu bokk bu ma ko defee rek bokkuma opposition. d'accord mais euh, juste une question boo xam ne. Euh, de sorte que ah, oui. de sorte que pour ma terminer foofu. dama jàpp ne Karim Wade. Mhm. yaayam nekk française. mm papam jiite na Sénégal fukki at ak ñaar. Mhm. xeexal na Sénégal ñaara fukki at ak juróom-benn. mu jur doom ci géñoom mu tudd Karim Wade mu nekkoon fi am ay responsabilité tey jii yow nga taxaw ne kii double nationalité la am Kalidou Koulibaly amul double nationalité mooy takk suñu brassard. pourtant la République française confirme na que kii effectivement il a une double parce qu'il l'a déchu euh, pas. il a dit qu'il a renoncé à cette nationalité depuis longtemps. mais le décret est sorti très tard. mais le décret mais il y a des lenteurs même bu loolu amoon. Mhm. na ko conseil constitutionnel retrouver mu génnee ko ne Karim maa ne woon ne bokk nga ci liste bi le 21 mais bu ma saytoo gis naa ne yow mënatoo nekk parce que ndekete yoo nekkoon nga sa français. Mhm. amoon nga nationalité française te léegi nii nga renoncé fekk déjà dugal nga sa dossier na ko conseil conseil constitutionnel wax sénégalais yi nangu. mais tey jii Karim bokkul day naan waa ji moom moo tax Karim Wade bokkul duñu mës a wax conseil constitutionnel waa ji moo tax Karim bokkul na dem euh, ba fekki Sénégalais yi. waa jooju nee na moom sa seule préoccupation c'est que ñu respecter suñu charte réew. Euh, mooy constitution. préoccupation bu mu mënta am. mënul weesu préoccupation conseil parce que moom la ñu jox pouvoir yi pour mu àtte. mais il boo xam ne am na am na en fait sañ-sañ. pour sàmm bu mais je te di euh, encore une fois. oui je te dis encore une fois. Mm-hmm. moom bokk bu Karim Wade di bokk. Mm. tey jii bu ñu ne Karim Wade bokkul. sénégalais yu waroon woteel Karim Wade ndax moom dañ koy woteel booba duñ ko mës a woteel. duñ ko mës a woteel duñ Ba. bu dee moom moo tax mu mu def kii bi mais lenn rek lay wone mooy moom bokkul opposition Sénégalais loolu lañ jàpp. d'accord ne waa ji bokkul opposition parce que moom moo xañ Karim xam nga Karim mu jógee senegal ak léegi gën ngaa gàtt juróom-ñaari at la parti politique am mu ngi fi waxuñu kenn gisuñu kenn Karim lañu gis ay sénégalais yaakaar ci moom ba ñu jox ko li mu député bu toll nii waa PDS am mm-hmm. yow même boo ko xamoon. même boo ko xamoon du fii nga koy waxee. mais li mu député boobu c'est dans le cadre de la de l'intercoalition. yooyu waaw loolu kay moom bu ñu àndaloon ak Ousmane Sonko bu ñu àndaloon ak ah, Ousmane Sonko duñ ko mais au moins. oui cest à parti a continué à exister am na parti yoo xam ne tas nañu. Mhm. am na yoo xam ne tas nañu mais le parti a continué à exister malgré l'exil de Karim mhm. par respect pour ces gens yow même boo ko xamoon na sax mën nga ko wax après. mais pas maintenant de sorte que nga fexe ba ñu éliminer Karim Wade je me demande hier comment il a dormi je me demande comment il a dormi. ca euh, Thierno waaw. mais dans la satisfaction puisque li ma amoon bëgg na ko. kon kay moo tax ma ne la opposition. d' accord temps bi jeex na monsieur Dianté ñu bàyyi la donc nga. nga joxe sa dernier mot bu euh, si vous avez également benn message booy lancé. waaw d' abord dama lay remercier ci invitation bi. Mhm. Euh, je crois que le débat était intéressant à tel point que pour man <laughs> xëy on n'a pas encore fait trente minutes. <laughs> a fait plus de une heure j'espère quand même que j'ai répondu à tes attentes. xëy li nga doon xaar ci man euh, ci sama tontu yi indi naa ko. Mhm. encore une fois di rafetlu seen liggéey ci Sénégal 7 bi. xam naa moo tax sax ma ma mën a bësoo nekk seen xarit. <laughs> parce que am na ay am na ay médias yoo xam ne boo nekkoo mooy may mën a demal foofu mu ne daf lay naan dew fa. waaw mais toujours disponible voilà voilà donc <laughs> euh, euh, jàpp ne. li conseil constitutionnel def nii. Mhm. Euh, sénégalais yi ñu bëri am nañu leen naqari démb. Mhm. ndaxte bu ñu éliminé woon Ousmane Sonko te mu méngoo ak yoon ak dëgg. évidemment benn sénégalais du ci am euh, lu muy wax mais euh, gis nañ ne fu ñu sukkandikoo pour éliminer Ousmane Sonko c'est c'est pas euh, te élimination bu ñu éliminer Karim également bett na sénégalais yu bëri ci kaw loolu mais ma jàpp ne sénégalais lenn rek moo leen yitteel mooy nan la ñuy fexe ba soppi seen réew mi soppi dex doxalin bu fi nekk biir na ma ne le 25 février 2024 képp koo xam ne da nga bokk ci système bi da nga bokk ci système bi waxuma la régime bi da nga bokk ci système bi. Hmm. Sénégal yi dañ naan naa demal toogi fële. te benn anti système moo nekk Sénégal. Hmm. mooy projet bu Ousmane Sonko indi. képp ku ku Ousmane Sonko yénnu. Hmm. Sénégal yi dañuy xam ne ñun projet bi du waa ji moo ñu intéressé projet bee ñu intéressé. te gars yi ànd ak moom defal Ousmane Sonko lu mu bëgg def luy naxari gars yi. jërëjëf accord <laughs> jërëjëf jërëjëf euh, Mamadou Lamine Dianté. moo lañ doon dalal ci entretien spécial bi nga xam ne mbokk yi ñu ngi leen ko doon euh, proposé mooy le coordonnateur du LACOS euh, mooy leader yi nga xam ne ñoo jóg ngir jàpp ci euh, candidature bu Ousmane Sonko ngir mën ko yóbbu ci victoire finale au 25 février 2024 jam li pour le moment nag mënagul nekk mais am nañu yaakaar ak recours bi nga xam ne dugal ngeen ko pour que li ñu bëgg ñu am ko donc ñu ngi koy jaajëfal bu baax. bu Ousmane Sonko demee. Uh-huh. LACOS dana continuer. bu Ousmane demul aussi Lacoste dina continuer parce que bu joxoñee Cheikh Tidiane Dièye ci Lacoste la bokk. Mhm. <laughs> c'est un candidat allié à Ousmane bu Bassirou Diomaye Faye demee ci Lacoste la bokk parce que moom so son mandataire là il siège au de Lacoste bu Habib Sy la boobu siège au niveau de Lacoste donc ba léegi Lacoste daal mu ngi fi quoi qu'il en la victoire lui va lui revenir également c'est ça jërëjëf kon ñu jaajafal ko bu baax jaajafal leen mbokk yi ci teewlu bi si diaspora bi ak ci réewu Sénégal di rafet nu ànd bi ngeen ànd ak Sénégal 7 tuuti mbeng moo tax ba ngeen